kii mooy suma candidat mooy Khalifa Ababacar Sall yàlla na ko yàlla may jàmm te au passage grand maa ngi lay baalu àq dama naroon woo mais xam nga rek caaxaanu gaa yi quoi moo tax on n'a pas pu se parler au téléphone je viendrai au dialogue une fois que j'ai terme de référence maa lay jégalu nag grand maa ngi lay jégalu ba ci kanamu yàlla maa ngi lay jégalu je n'ai pas besoin de venir pour l'ouverture d'un dialogue c'est une cérémonie officielle c'est nii fii que dama ko dama ko naroon yégal balaa may ñëw fii je l'ai pas fait ma mag la su kilifa la mais comme demain ce n'est qu'une cérémonie d'ouverture moom il peut dignement m'y représenter il est le patron de Taxawu Sénégal man demain j'ai des engagements avec la mairie de Dakar une fois que les termes de référence seront arrêtés je viendrai m'asseoir et parler en res en tout respect et en toute courtoisie avec les gens et j'espère qu'on peut s'entendre et les gens qui ont décidé de ne pas venir au dialogue je les invite à revoir leurs copies parce que le plus nous sommes nombreux là-bas le plus on peut imposer notre, nos, nos points de vue parce que si le président Macky Sall n'était pas d'accord avec suñu ay point de vue mais il n'accepterait pas le principe du